suñu mbokk internet Dakar Midi nuyu leen char leen jox leen seen wàccuwaay di leen wax rek ne leen saa ne nii dañuy dox ci li neex di dox ci li leen di bégal euh, tey nag seen tribunal seen émission tribunalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi tey mu amalaat beneen ndaanaan boo xamante ne da ko nar a feeñal seen émission bi ndaanaan bi nag soxlawul ñu leen di wax mooy kan soxlawul ñu leen koy présenté Nabila lañ koy wax kan mooy maamam di ngeen ko xam tuuti ci kanam ci ban askanu géwél la bokk di ngeen ko xam léegi ci kanam xaaral ma bàyyi ko mu nuyoo mu présenté wax leen moom mooy kan Nabila nuyu nañ waaw salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Sénégal ah maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa ah, fépp waay nekk rek boo xam ne yaa ngi bëgg Nabila maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay yow nag ah borom émission bi nga xam ne moo yëngal dëkk bi fi mu ne nii fi réew bi toll nee naa la koo defalul interview moom bokkul ci réew mi maa la wax loolu. mooy Nabila Nabila suñu la doon laaj kan mooy Nabila dañu mën a présenter sa bopp. waaw dinaa sawar loolu pour wax sama bopp ndax nee la lu ne fàng moom kenn du ko jeex Nabila Nabila wu réew mi la Nabila wu Ndiaye Rose ah ku xam Nabila. xam ne Nabila bu waa kër Alaaji Dudu Njaay Kumboroos foofu sama kër maam ma leen di nuyu nag di nuyu ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Ndiaye Rose di sama mag sama xarit waaw moom bu ma bëggee aar sax yàlla ak moom la waaw ndax li nabilaa nabilaa di bari yëpp kooku moo ko def si man nee naa ragal féete day xañ a te man topp ma kenn Ndiaye Rose rek laay topp waaw. am du Ndiaye Kumboroos mooy sama. waaw mooy sama maam. mu def lu ne nag ci ci aaru Sénégal ci tëgg waaw loolu la yàlla dogal ndax yaakaar naa ni buñ nee star di laaj patrimoine kooku mooy star moo tax nit mënuñoo jaay lu ñu saf du neex a wax nag waaye bu tëgg yeggee fenn fi yàlla ak alaaji Dudu ku boros maanaam tey buñ la doon laaj sa côté maam ci li mu def ci wàllu aar wàllu musique Sénégal muy tëgg magi géwél yi léegi ñu toog ci ruq ñuy jooy Dudu Njaay ku boros di jooy V55 di jooy ay yeneen i mag ku jum ñu ne tëgg mi yàqu na xale yi ñoo yàq tëgg mi baara mbay bi baaxatul ceebu jën bi tëgg mi daal yàqu na forum sabar mi yàqu na xam nga léegi yow sa xalaat ci tëgg mi lu am la wala ba léegi tëgg mu ngi fi mu woon ba léegi waaw xam nga ku nekk ak li ngay gisee ñi naan tëgg yàqu na xëy na ñoom seen côté lañ gisee ni yàqu waaye yow ba nga ñëwee léegi gis sawar gis ni ñuy tëggee gis ni ñuy comporter nga war a xam ni ñun ñu ngi si règlement bi ñu neewoon ba léegi bu ñu yokkul li sunu maam yooyu bàyyi woon ñun jéemuñu ko wàññi te boo gisee ni bu doon li ñuy wàññi la yàlla du def tey école yeeg sabar yeeg xew yi ku nekk di woow koo wax mu ne waa kër Ndiaye Rose ñoo may tëggal Mamadou Lamine ak waa Ndiaye Rose wala Nabila ak waa Ndiaye Rose ndax ñun li fi maam yi bàyyi woon buñ ko yokkul duñ ko jéem a te boo xoolee ñoo ñooñu di wax nii dafa yàqu nga xool leen ñoom ak ñun mënul nekk benn parce que ñun ñu ngi xool li nga xam ne mooy jëmale aar bi kanam ñu koy def ñun du ñu xool loo xam ne da koy delloo gannaaw parce que ku yokku da ngaa wàññi te ñun yokk moo ñu war wàññi waruñ moo tax. mais dañ naan gis ku mel ne sa maam su waraan tëgg spectacle bu sabar yëpp tegoo day am nu muy léemoo mag ñi ne léemu boobu tàggu la ñu ne tàggu bi léegi xale yi léegi tàggatuñ mbaar parce que dañuy ñëw rek teg sabar rek commencé tëgg tëgg tëgg yoon dafa dafa metti waaw te lu waay doonu taalibeem du doon sëriñam man kul wallaahu ahad si alaaji dun njaay kumbaros laa ko déggee moo koy tëgg ci sabar te loolu ñun buñ ko xamee yàlla ak sunu papa Moustapha Ndiaye Rose moo tax ñu xam ko moo ñu ne lii mooy kul wallaahu ahad te ñun yàgg nañ seetaan ay émission même tëggandoowuñu ak moom sax sunu maam du jaay mais daan nañ seetaan di xool li muy def ñu koy jéem a doxee amaana sax matale wu ñu parce que kooku unique la waaye ñu ngi xool li nga xam ne mooy doxal aar bi ñu siy jéem a teg suñuy tànk dox suñuy jéego pour matale loolu. yow yaa ngi tàggu kan man yow xam nga ni man lépp laa mën. bu normal bu jaar yoon. la ilaha illallah man damay feet. damay tëgg damay way damay taasu yàlla nag moo amaana moo def nii taasu bi la ñëpp xamee Nabila mais damay tëgg damay fecc tëgg da ngay fecc waaw damay way te lépp da ko namp wala da ko jàng mu yéen doole li la yàlla yàlla di def si man man ba ma commencé tëgg matul cinq ah cinq ans ak Nabila Nabila bi yëpp déggoo li ma ni nga siiwee ci réew mi ba ci ba ma commencé tëgg matul cinq ans waaye neewoon naa li ma waxoon bii paase rek ne lu sotti day am borom artistes yi mag yi laqale nañ fatte nañ lu nit tëgg ñu jëlaat ko ne ñoo ko moom dañ ñu si dimbali. yow dafa am loo tëgg yow artistes yi jëlaat. bari na lan la lan. laa ilaaha illallah xale bi yaa ngi suus. yaa ngi suus yaa ko tëgg. maa ko moom. ah mais nag Nabila nag yaa ngi suus moom. géwél yi taxaw nañ ñoo ko moom bëri na de sa waay. waa léegi man xam man tubaab preuve la bëgg. man maa xale bi yow yaa ngi suus Mamadou Lamine Ndiaye doon jox ma baax àdduna bi yëm mun naa ñoom koo ci woon këram téléphone du la ne suus ban date la te yow xam nga date suus daaw la 18 mai 18 mai daaw 2000 2023 waaw yow moom nga ko créé am un an moom nga ko créé waaw boo gisee samay statuts maa ngi koy wax maa ngi naan chaque année ma jox leen ndawtal ci xew mi parce que si laa bokk ren lii déngal réew bi ñëpp xam nañ ko mais suus suus suus sa waay nga ne yow yaa moom suus yow yaa créé maa ngi maa ne déggoo ma ne la xale bi yow yaa ngi suus ma naan leen suus nu mu yombee maa ko fi indi ndax lu sotti ci réew mi day am borom Mon Lamine boo ko woyee ma taasu ko lii nu mu yombee maa ko fi indi bu baaxee ñu dem ak lan nga fi indi waat lii yëngal réew bi nee naa chaque année ma indi ndaw tal ren feccal Mario Mbaye bi ñëpp a koy gis Mario Mbaye bi moo ko de kan moomu Mario. ah Mario Mbow am na géwél yu nekk Medina am na ñu nekk tamit Grand F na ñu xaar yàlla bi na ñu ñoom ñoo ko moom. Ah, léegi ñoom damay dem seen programme man ñëpp laay dem seen programme bu ma dugg see xam nga li ñuy wax lan lañ siy teg Nabila lii dafa neex feccal Mario Mbaye ñëpp di gis xale bu ko mën neel nabey bandi réew mi ras sakin ras sakin ras sakin ras sakin tagi sakin raj loolu xam nga ni ñëpp xam nañ mooy borom. barki démb de dem naa parcelle booy parcelle yi ne ñoo ko créé. waaw loolu la nee naa la li ma la waxoon si suuf bi rek lu sotti si réew mi day am borom. Mario Mbaye bi bu génnoon neexul kenn du ko tëgg yàlla nag mooy def ma damay dem ay soirée Sidi di dem ay soirée naajo damay dem soirée artiste mais yàlla moo def ma dem si soirée Sidi laa dem xaw na sa yàgg gis. muy fecc waram ci tur bi ci boppam ci moom way bi di fecc di def nii xam naa ko mais moom xamante wuñu après lañ xamante TikTok ma koy nuyuwaale de passage naan ko le 31 incha allah Mario Mbaye ak ASC bi waa espace ñoom laa ko may ñu avancé maa la wax loolu. yàlla def ñuy liggéey. premier single bi may woo nan ma Nabila foog ñëw studio ñu joué boobu mënu ko ma taasu ndax moom moo ma def taasu kan may taasu ba yàlla def. ñu premier single ma tëggu ko tëggu ko laa ko waxal feccal Mamadou Lamine Ndiaye Rose deuxième single ma ne ko xale bi dafa sañse teg si jongo ma kaay nga fotol ma ko selfie ko partagé ko ba yàlla def lii ñëpp di fooyee maa ko ko wax maa ko ne Ndiaye Rose Ndiaye Rose kase sa noon bu dee yaayam juraat taas ko di dëpp ko ku ne di wax loola neex ah bon wala wax preuve lay am. des fois damay dégg ñu naan awa awa awa awa kese. sa noon bu dee yaayam juraat bu pare woon léegi ma may la ma wala ay yoo xam ne dangay taf sa gémmiñ su ma la déggee mooy gars yi li ñu ambiance lépp yow yaa créé. balaa nga koy xam bu ñemee léegi ma foo lu neex. ah bon maa ngi mais des fois dama lay seen ci programme bongo yi da ngay da ngay bongo tamit. waaw wax Nabila ku ko xam da nga naan taasu kan la boo ma fekkee bongo nga ne bongo boo ma ñëw tëgg nga ne ma tëggkat bu mag la. mais sama maam bongo wul de yow foo jàngee bongo. bongo nag daa xëy rek ñëw ba <laughs> bongo man balaa léegi bu ñu tey xam nga lu ma def xam nga yow xam nga ni damay bongo xam nga ni damay taasu xam nga ni damay tëgg xamoo ni damay way bu ñëwee du ma taasu du ma tëgg damay way yow da nga woy ma dégg bu ñëwee ma way la ma kontaan woy bu tegu ci yoon ak temps du ma wax luy dañ man la nabi laa mais mais bongo maa tamit xam nga ci ci côté bongo yi ñi wax ne ay bongo maan lañ dañoo bëri tam maanaam mënuñu jouer ñaari notu bongo yow da nga mën a jouer bongo yow wala da ngay taasu ci bongo man damay taasu si bongo mais mënoo jouer bongo mënuma jouer bongo waxtaan wax dëgg jël parce que jànguma bongo mën hmm. naa bongo mais mënuma comme gars mën bi tax ñu naan mën. di bongo di wax quoi mun naa bongal sama bopp mais mënuma di bongo di wax. mais seen wàllu programme yi tamit maa ngi ciy dégg ay affaires yu garaaw ay sisante soxorante ay liggéeyante yow tey su ma la doon laaj sa wàllu aar bi buñ ci dugal léegi ci biir cinq lan moo la ci gën a métti ak lan moo gën a sedd soxor li ma si gën a métti mooy nga def dara nit ñëpp génn na ñoo ko moom te mu kooku leer ko bu tëddee këram dina xam ki mu mën ak ki ku mën. xanaa da ciy gañal ci gañewul yow. non sant yàlla la munul gañe lu ma gañewul parce que yàlla war war nag xamul tax moo may métti parce que ni da ngay gëm sa bopp man du ma fekk ndongo génnee lu neex ma am fitu dugg génne ko di ko namoo du ma ko def ni baaraam yi wutee loolu la nit ñi wutee ndax yàlla dafa maye te yemlewul man am na ñoo xam ne ñoo ma dàq li may def fuuf mais yàlla suturaal na ma ba chaque année chaque année Fosco école bu jotee ma génnee lu nit ñëpp di fecc te day yëngal réew mi Mario Mbaye bi buñ duggee léegi ma wax la si lu ma waxoon ma dëpp ko barki Serigne Bamba kon daal yow su ma la déggee ba dégg la maam li ngay créer artistes di ko jëlaat loolu moo la gën a métti ci aar dafa bari mais la moo la gën a neex ci aar lan moo ma gën neex si aar mooy amour bi dama am amur aar man sédduwuma si dara parce que man Nabila ku xam Nabila ci ay defar t-shirt nga ma xamee man damaa sob defar t-shirt folo gaz yi si yooyu laa nekkoon ak football yooyu jaar na ci yooyu laa naa sa téer waaye bu lox luy ñaw ñaw jaar nga ci ñaw téer ay caaya <laughs> barke rasulilah ay turki njaare fili roof yow kat yi mag i xam nañ lool yow da nga ma nuru da nga ma nuru bi nga nekkee xale xale bu sopp nga ma. nga ma jox nga ma sopp parce que a teel bañ dama nekk bañkat te man ku ma xam-xam ne Nabila bañkat la ma ñëw ma kenn lu waay war a am man dama koy am maa ngi sant yàlla boo ma xoolee sax xam ne maa ngi sant yàlla wu baax. barki dee moo Ndiaye la Toura moo nekkoon sama première sortie individuelle man kese ah bon débuté de OWA dama ko gisee fermé. ba ñuy dugg laaj raxas le 31 yow laa ko tuddee le 31 bii di ñëw le waaw sargal Mario mbay ak AIC bi nga tuddee moom tuddee naa la lool du yomb yaay pare loolu du ak ma fi yaa espace <laughs> mais li ma bëgg a ñëwaat mooy système bi programme yi dégg naa ne da ngeen di lekkante comme jën dañ lay fay benn cent mille am ko jaar ci suuf na fay leen ma cinquante mille ma tëggu ko ndax loolu ndax loolu yow yaa ngi koy dund ak artiste waaw par exemple nit woo di waxaale ba mu war ma yónnee avance après ma toogaat du ma ko dégg mais man du ma woowaat kenn man boo ma woowee dama lay déglu boo woowaatul dama la woo mais après laay dégg ni am na keneen ku ko tëgg gars yi ñoo ma yónnee vidéo ma ne ah kii moo ko tëgg mais après ku jigéen kii da la koy wax moo ma ne ah waaye yow li nga ma waxoon dafa seet diw laa mujjee jël mais damay jàpp ni wërsëgam moo toll noonu kooku moom amaana liñ ko wax arrangé na ko moo tax mu jël ko du ma si mere kenn parce que ku sa xel tol rek loolu ngay def. artiste yi mos nañ la job bu sëñ ma job ah gars yi laaloon nañ ma fi de biir bi métti boo fa dëgg yàlla tele laay waxee waaw parce que parce que li tax ma laaj la loolu uh-huh. benn moment da nga xawoon a yëngal ba ñëpp naan nabila nabila benn moment tamit gars yi jékki saa yi déggatul la nga mel ni ko fay ba pare nga fëlaat jeexaat tàkk kenn xamul lan la ko xanaa boobu laal bi la woon peut-être feebar feebaru biir feebar boo xam ne xaw ma nag lu ko ay waaye sant yàlla dem naa ba di ko waaw xam naa gars yi la rek gars yi dañu ma baal man xale laa defaguma cinq ans dama bëgg a foo ak ñoom ba ci kanam nee naa damay foo ba raw leen ndax ñoom aayuñu moo tax damay foo ba raw wax barki Serigne Touba képp kuy téye mbir maay sa papa. aayuñu nga wax de. Nabila senegal na bëri ay talent de mais Sénégal bëri na ay talent de. waaye yow day dem soirée jàmbur yi sa caméraman bu ñu dem soirée jàmbur damay dem soirée jàmbur gis ko def taga daga daga daga daas taga daga daas taga daga daga daas suus suus def nii. borom way bi toog si kaw dina baal. xam nga li nga wax ni benn boy bu nekk Pikine dafa wax sànq ci conférence de presse lu mel nii ngay wax ne lu mu créé géwél yi artistes yi jël nañ ko. waaw dégg nga ma ne la dama ne ko xale bi kon yéen ñaar kan moo ci créé moom mooy créé wala yaa dama xale bi yaa ngi suus suus nu mu yombee maa ko fi indi ndax lu sotti ci réew mi day am borom ndax mu lamin boo ko wayee ma taasu ko ba mu neex dara du ko dindi su baaxee ñu dem. Mario Mbaye bi xam nga laa leen wax dama ñëw génne Mario Mbaye feccal Mario Mbaye xale bu ko mën del nabee bànn réew mi réew mi yëpp di ma dem ma dëpp ko buñu demee léegi dama ko dëpp xam nga lu ma lay tegal dama ko mënoo ko maa ko mën ku ko man nii la koy defee feccal Mario Mbaye loolu fi nga koy defee léegi-léegi bu ñu duggee bu ñu jugee léegi moo lay maanaam boog ñun ñoo ko njëkk a consommé yéen a koy njëkk consommé ko maa ko mën ku ko mën nii la koy defee feccal Mario Mbaye xanaa du maa mën maa bu yaa ngi tudd sànq ba léegi Baye Fall boobu Mario muy ko baax mais guddi ñu toll nii mu am benn clan bu am entre moom ak ex jabaram mais yow yow comme que sa gaayan la sa xarit la lan nga ñu ma wax mën a wax seen diggante ñoom ñaar waaw gis nga xam nga ni diggante Mario ak ndaxte ndaxte maa ngi koy nuyuwaale de passage parce que bërki demoo ñaar rek maa ngi woon ci ndogoom bi ci koor gi falaa Mario may man ba ma ko xamee ak léegi deful un mois ci challenge bi laa ko xamee mu message ma TikTok nekk ku baax ma message ko WhatsApp ñuy déggante ba mu ne ma demal si bés ñu def soo Mario may bi bu ma waxee leneen ci sëyam rek damay nekk naa fekk wala ba doon lu ma créé man xamaluma ko dara lu bon ndaxte tamit aussi xamaluma ko lu bon xëy na nag yàlla mooy tudd sëy te yàlla mooy tàggali doomu aadama xëy na yàlla fii la mënoon jaarale seen mbir te may wax sénégalais tamit mbiru jàmbur nañ ciy maanu ndax gisoo famille ndaxte ñu wax gisoo famille Mario mu wax ku ne di dugg ci problème mu jàmbur lu ne nga wax ko lu ne nga dugg ci loolu rafetul dañuy wàññi loolu waaw loolu laa amoon si lu may wax sénégalais yi. waaw mooy mooy mooy comme li ma la laaj sànq rek mooy polémique bi xam nga maanaam ñaari cas yi ku nekk ngi wax. mais comme yow li nga ci tontu tamit xel nangu na ko mais en tout cas euh, li ma la bëgg wax mooy mooy tey que ne doomu su doomu Doudou Ndiaye Coumba Rose lañ dalaloon ñuy wax ci wàllu tëgg mi ñu wax ci surtout Doudou Ndiaye Coumba Rose ñuy wax ci wàllu aar beeg tëgg mi mais mag ñi nee nañu sabari léegi foroote leen ko der maanaam ay mbuus toile ngeen di fooree. waa loolu toile bi nawet bi moo ko waral. mais yow sa sabar yi ma gis yëpp ay toile. waa xam nga tax mu doon tawal parce que démb dañoo tëggi ji munoo si foor der démb lañ tegi tànn biir ba ñu xëyee munoo si for der bu pare tey yenn xel moo koy xalaat moo tax ñu waral mu nekk mbuus mais ñun mbuus ñu ku ñu xam-xam ne ñun sabaru peeg ñëwal la fekk baax. waaw mais mais mais sabaru peeg instant na dafa manqué te soowu sabaru peeg la mag ñi soxla. parce que mag ñi tamit dañu consommé tëgg. waaw léegi nag nañu waxante dëgg waxtaan wax dëgg ci la léegi la woon woon ni la. boo fi neewoo teg fi sabaru peeg tegoo clavier. tegoo fi ay cung ak tegoo mbigoro di taasu di ambiance xale yi dañ naan xamoo dara nañ waxante dëgg xale yi li ñu bëgg ngay def nit ki la fay xaalisam li mu bëgg ngay def. kon li am ne jamono la waaw waxtaan na neex borom kër xale bu jigéen boo woo bu la woo sabar école nga ñëw sabar indi ay mëngu peeg gàddu tak géwal mooy xam ne yow kii ku mën a tëgg la waaye xale xamuñu lool xam lu ñu xam. xale bi yow yaa ngi suus ñi ñibbi Nabila toj na sabar gi ba Mamadou Lamine toj na ba Ndongo toj na loolu lañ xam xamuñu leneen. lañ xam xamuñu leneen léegi presque ñu ngi ci fin cappaandaw bi euh, te war na nañoo dugg ci baara mbay gi dugg ci waalo waalo bi ceebu jën bi faas dagañ bi te moom mi dafa war a tëgg war a war a fecc war a way léegi lan ngay tàggatoo après ñu dem xool yow sa mënin ci tëgg meeg way meeg fecc meen waaw léegi nag maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi bëggee Nabila wala ngay bëggee waa Ndiaye Rose Junior maa ngi la woo nag le 31 incha allah spécial raxas fële ca débiterie Uba Liberté cinq man Nabila maa ngi woo ñëpp spécial ambiance ah numéro Nabila nag da ngay def 77 105 56 96 ma ne numéro Nabila ku ci bëgg bi lay woowee pour jot la ci programme pour jot ma si programme yi cinq ngay def 56 96 pour yéen ñi nga xam ne nag. yéen a ngi toog lu waay tëgg ngeen ne yéen ko moom man Nabila maa ne moomoo leen dara baa leen sàcc mënoo leen bawoo leen di yàq aar bi ma ne sama numéro 77 la 105 56 85 ku ci am loo moom nag da nga ko téye te ba sama yëf waxal sa wax waxi jàmbur doo wax